Sall moom Ousmane Sonko mu ne la nga xam ne ñoom daal dinañ koy fësal ci seen xëtu njëkku yéenekaay nekkul dëgg te dañoo déformé ay kaddu yi ñenn ña nga xam ne ñoo fa te teewoon doon témoigner ci boobu lépp dossier comme ku ci mel ni docteur Alfousseyni Gaye Ousmane Sonko mu ne nag mën naa comprendre que ni ñoom bëgguñu ko wala book neexu leen waaye saa su ne la nga xam ne moom moo am nañ koy raconter moom moo gën foofu ñu koy waxal loo xam ne amut wala book déformé docteur Alfousseyni Gaye moom ci boppam génnee na ab communiqué daal di démentir lépp loo xam ne presse bi daf koo yëkkati ci ay kàddu mu wute lool waroo ak la xam ne moom moom la wax ca boobu lépp tribunal mu nekk nag lu doy loo xam ne Ousmane Sonko naqarlu nag bu baax a baax te nee na loolee nekkul nag la première fois mu koy daal di dal ci ñooñee nga xam ne ñoo di waa l'Observateur sénégalais yu ci bëri nag am ci lu leen métti ndax ci soo ba tey ñu ngi gis commentaire yi nga xam ne am na ci boobu le presse rapport ak xibaar yi nga xam ne moom lañ génnee ne moo amoon ca biir tribunal bu Dakar Ndakaaru Njaay mu mel ni nag mbir yi tàmbali naa doy waar du ñàkk nag waa l'observateur ci boppam ñoom dinañ ci indi seen ab tontu lu ci mënti am équipe AGT News dañ leen ko toppal ngir saasu ne ngeen ci am ay xibaar ki jàngat AGT News